arbitre bi nag mi ngi laaj ay jugeem ndeysaan arbitre bi sifflé na combat bi diggante Dame Sène ak Modja ndeysaan Dame Sène écurie Manga 2 a bokk te foofu tamit bëri na fa ay champion yu bëri foofu nañu nekk mi Mamadou Ndiaye Ablaye Ndiaye Paul Maurice ndeysaan ba si Papa Général day sànn ñoom ñëpp école dit màng dë nañu bokk mu jaa bokk écrit Yoff écrit Yoff képp ku dégg sa xel dina dem ci Malick Niang day sànn bëri na fi moom ak Ama Baldé Ama Baldé ka daan ko jël ba amul benn werante day sànn day sànn diggante Dame Sène ak Modja ñoom ñaar ñu ngi lewtoo Dame moo ñu wan ginnaaw mu jaawan ñu kanam ñoom ñaar ñu ngi lewtoo kii jiital pied droit kii jiital pied droit ndeysaan diggante Dame Sène ak Modou Dia ndeysaan Dame Sène tagg na lewtoo bi Dame Sène tagg na lewtoo bi Dame tagg na lewtoo bi ñoom ñaar ñi ngi lewtoo diggante Modja ak Taw Sène diggante Dame Sène ak Modja ñoom ñaar ñi ngi lewtoo diggante Dame Sène ak Modja Cheikh bëggee naa la ndeysaan doomu Badou Sall ndeysaan maa ngi gërëm waa Tiwaawan ñoom Pa Abdou Fall ñoom Maane Fall ndeysaan addu bi attanawaat na combat bi addu bi bi arbitre bi bi diggante Dame Sène ak Modou Dia diggante Dame Sène ak Modou Dia ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante Dame Sène ak Modou ndax dina jeexee fii wala du fi jeexee ci kanam dina leer ndeysaan diggante Modja Dame Sène ñoom ñaar ñi ngi si diggante Dame Sène ak Modja ndeysaan diggante Dame Sène ak Modja ndeysaan arbitre bi àtt na combat bi ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am na avertissement diggante Dame Sène ak Modja diggante Dame Sène ak Modja diggante Dame Sène ak Modja ñaar ñu ngi lewtoo diggante Dame Sène ak Modou Dia ndeysaan xoolal ma loolu rek bi foofu ndeysaan diggante Dame Sène ak Modou seen sànni na droite sànni bi dafa sori diggante Dame Sène ak diggante Modou Dia ak Dame Sène sànni na gauche droite mu ngi dox ci kawam ndeysaan diggante Dame Sène ak Modou Dia diggante Dame Sène ak Modou Dia na gauche droite Modou Dia ñi ngay xeex ndeysaan diggante Modou Dia ak Dame Sène arbitre bi at na combat bi dafa doon wax dem na ardo waaw dem na ardo arbitre bi sifflé waat na combat bi diggante Dame Sène ak Modja ndeysaan Modja mi ngi dox ci kawam ndeysaan Modja sànni na droite mais bi dafa sori ñaar di ngi lewtoo diggante Dame Sène ak Modja waaye Modja jël na ko mais song bi dafa sori ñoom ñaar jàppante nañ laa ilaaha illallah daan na ko Modja daan na ko jël bi amul benn werante daan na ko jël ba amul benn werante day mu jaar daan na ko doole taxul jàmm daan ko jël ba amul benn werante technique la ko daanee jël ba amul benn werante